biraasu man baarazani biraasu man yu baarisul muntaximal baari zaman sullu lazi yu baarisullaah al jalil zullu salilin fawqahu kullu salil mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi sant yàlla di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddalewaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te dolli ak wéram mbokk yi tey jii di talaata yemoo ak juróomi fan ci weeru gàmmu dëppoo ak fukki fan ak ñaar ci weeru octobre ñoo ngi ci Maqarul Azna kër Serigne Amsatou Mbacké ñu gën koo miin ci Amsatul Xadim di président daayira Xudaamul Xadim ñi nga xam ne ñooy défendre lépp lu jëm ci euh, attaques yi nga xam ne noonu ñu ngi koy attaqué yoonu murit mu am nag ay nit ñoo xam ne yëkkatiwaat nañ ay kaddu jëmee ko ci yoon wi ginnaaw sëriñ Amsatu nee na woon ay waxam da koy néewal jëfam la ëpp lu muy def léegi ndax Cheikh Mahamadul Muntaxa noonu na ku baax ku baax la ñuy waxal waaye ku bon dañuy jëflanteeg moom mu am ñoo bokk yoo xam ne nag fas na yëkkatee ay kàddu jëmee ko ci ñoom ñu maas a déglu ko. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu. bokki jullit yi bokki taalib yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp ak fu ngeen fi maa nekk di feeñal aw naqar ci ñaari jëmm nag rek yoo xam ni. dañoo bokk ak ñoom dëkk bi bokk ak ñoom diine ji bokkoon ak ñoom tarixa bi mu mel nag ñoom dañ caa génn kenn ki moom Ibrahima Xalilu la tudd dëkk nga Ngaabu li may wax moom li may wax ak moom du bari yóbbante woon naa xaritam di sama xarit Maamoor Mbàkke ci moom ne ko wax yi wax yi mu ñaaw yi muy wax di ko wax ci bisi Sëriñ tuwaay yi ak di wax jëmi Sëriñ Tuubaa yëpp ak ci man maa ngi koy waajal nag su ma accès ci dana xam ne agsi naa maag samay ndaw incha allah beneen bi ku ñuy wax Ibra ku ñuy wax Ahmadou moom mooy seen kilifa moo jiite seen kuréel googu comme dañoo bokk dëkk bi nag te ñu leen suturaal leen ngir seeni i waju daa àndoon ak sëñ Tuubaa seen i baay itam bokk ci njaboot gi ñu rus leen lool yàgg dégg seen i kàddu yu juunoo juunu ci yoon wi mbir soo ca génne da nga cay maanu waaye waroo caa wax yenn kàddu yi kooku mujj tudd nag gisoon naa ab boo xam ne dafay sëñ Abdou la ci attaqué gisoon naa boo xam sëñ Fall la ci atta ab boo xam ne sëñ Fall la ci attaqué ak boo xam day ñaawlu màggal gi yooyu nag da cee war a maandu gannaaw gëmatul sëriñ bi gëmatul bi li sëñ bi woote daa war a maandu ci ci mbiram te kat moom wut ko to la boo xam ne am na ay bagages ci dëkk bi bagages yi nag foofu mu fi ne xam nañ ko. bu fekkee sëñ tubaa da koo neexut ab dëkkam neexu ko ay jëfam neexu ko ay taalib neexu ko daanoo war a abal dëkk bi ndax dëkk bi sëñ Tuubaa ko na ko sëñ Moussa Sall waxee woon ci foofee ca ca ca ubbi teg jumaa ja képp koo xam ne sëñ Tuubaa neexul neexu la da dem wut sa barab bopp woote fa la ngay woote ba xam kenn la fekkam dëkk waaye ñëw ci dëkk sëñ Tuubaa nag di tilimal di gàkkal di ayibal mayatuñ leen ko su ko defatee suñ déggatee lenn mu wax ko. dañ ko jëflante ak moom fu am ay bitig ak fu mu am kër yëpp xam nañ ko boobaa xañ duñ yàq de hmm? waaye nañ jëflante ak moom daañu fexe ba nanguloo tekki loxo pen ba mu ci defoon yokk ndax suuf si suñ tubaab ko mu gën mu dem fa mu dëkk def fa la mu fay def tooñ gi metti na yàq gi metti na te ñoom ñaar ñu ñoo ko jite am na ay ndaw yoo xam ñoo leen yar ñuy wax la ñuy wax di saaga kilifa yi am na ko fi doon soxna tudd jaar di ko wax loo xam ne euh, junu na dëkk bi nag daa am loo xam ne fardu kifaaya ñëpp mënuñu ko man nag man naa ko waaw ndax euh, tool bi sëñ Tuubaa yonte bi euh, ñoom àndoon rey nañ leen xaañ nañ leen def nañ leen lu ne te taxul ñu ñu découragé sëñ Tuubaa itam fii mu jëm fitna ju ne teg nañ ko ko natt ba ne teg nañ ko ko te teewul mu àgg fa mu jëm ñi àndoon ak moom di ay mag itam bañ daan ko fekk gànnaar ak xumaag fu ñu ko a fekk dañ leen daan dogal ci yoon di leen fitnaal te taxul ñu bàyyi lañ nekk seen pas-pas ci sëñ Tuubaa defam ñoom nag liñ bëgg dañ ci dul am ndam ndax xup xup jàmbaar jàmbar ak naawu ragal ak yafal màggat yoon nga lañ nekk loolu nag dañ cee mënta am ndam te ku ñemee da ngay jàkkaarloo waaye traag moom dafa amut solo xeexu ko ragal dong moo koy def hmm? bu ñu ñemee kay nañ ñëw ci dëkk bi def seen i conférence wax la ñuy wax boobaa dañ leen fekk jëflante ko ñoom waaye ñi ma woo tudd tur di junjëw ba xam ne eh, ku ne day xam ni nga wax loolu mooy mooy traak te xeexu ko ragal la ku ñeme da ngay jàkkaarloo. noonu nag noo ngi fi doon taalibe Sëriñ Tuubaa yu ko yaakaar te yaakaar ko ëllëg tam gënal suñu ndey gënal suñu baay gënal suñu bopp képp ku ko wax loo ko te wax wala nga def ko tañ xam la foo nekk dañ la fekk lii daal mooy wax ji wasalaamaaleykum wa rahmatullah